salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin ma kat ya ah. eh, sëñ bi ñu ngi lay ziar waaw yàlla yàlla na ko siyaare sëñ bi yow foo jógee man maa ngi ko ba Dakar ñëw fii di liggéey ah côté Dakar nga jógee waaw côté jaay ah, wàllum téléphone antu choc ay chargeur casque blende protège yooyu laay jaay quoi yooyu ngay jaay yooyu laay yëngu mu mel ni màggal gi mën nañ ni jeex na waaw wax dëgg yàlla ndax yëf dox na. waaw dox na moom dox na wax dëgg yàlla parce que man teel laa ñëw dama teel a ñëw. xam nga semaine laa ñëw ba ba léegi si biir loolu jaay naa ci ñaari yoon wax dëgg yàlla. jeexal nga dem wuti waat ma dem wuti waat ñëwaat. mais terewul instant lu fi des ni tut la quoi wax dëgg yàlla. waaw waaw te ba léegi màggal gi mën nañ ni des na. mën nañ toogaat fii ak 4 euh, mën nañ fi toogaat di liggéey. mën nañ fi toogaat fii 4 jours. li mooy première fois nga ñëw ci màggal pour jaay si yàgg naa ñëw si su ma ñëwee damay màggal si mais damay jaay ci su ma demee siyaare ji guddi gi après bu ma xëy see ñëw ñëw euh, sama place liggéey daal waaw. Euh, màggal bii nii 2021 euh, bi ak yi passé moo ci dàq. waaw bi moom macha allah bu ren bi moom seetlu naa ci yu bëri yoo xamante ni mosuma ko si màggal gi. ndax neex na am na ambiance. xam nga.